suuratul humaza saar la woo xam ne màkka la wàcci soo jëlee saar wi juróom-ñeenti aaya la saar wi fanweeri baat la téeméeri xaraf ak fanweer la saar wi nag buñ ko doon jël ci toftaleeg alquran mi ngi wàcci gannaaw suratul qiyaama waaye toftale gi am ci moom moo tax ci dégg-dégg ak yonantu beeg jàngaleem ne nañ ko dugal ci gannaaw suratul asri ndax kat wal asri yàlla da cee gëñoon ne nit ñi perte nañ ne wal asri inal insaana la fi xusri ñu ne ñëpp perte nañ tiit ba saar woowa di jeex mu tofal ci liy wane nag mandargaay pert mandarga yoo xam ne ku ca ne rek sa dund gi perte na ñu ne ko loola lan la mu ne mooy waylun li kulli hummazatin lummasa képp koo xam ne da ngay nit ñi buñ fi nekkut ci sa làmmeñ di leen jëw yow sa àdduna yàqu na sa àllaaxira yàqu na koo xam ne tamit da ngay nit ñi buñ fi nekkee ci say bët di leen piis di piis sa moromam gor ci sa gor kooku mooy lumma su boobaa ku def loola perte nga ñetteel ba tamit koo xam ne da ngay dagale alal rek di takk di ko def ci ay compte mbaa ngay dugal ci ay coffre-fort mbaa nga koy def ci ay tabax yu dul jeex yoo xam ne doo ca dëkkee dagale alal rek bàyyi nit ñi ñuy sonn nga yaakaar ne sa alal jooje mën na laa teree dee yàlla nee na perte nga moo tax mu ne maanaam moo tax mu ne alladi jamaa maalan wa addadahu yaxsibu anna maalahu axladahu perte gaa tax nag mu ne kàlla la yumbatana fil xutama ku melokaanu ñetti melokaan yi di jëw nit ñi buñ fi nehut kooku mooy hummasa nga xam ne moom la yàlla xasee woon Walid ibn Mughira hammazin mashaa'in bi namim waaye tamit koo xam ne tamit da ngay jëw nit ñi ki say manière buñ fi nekkee kooku mooy lummasa wala talmisu anfusakum wax na ko ci beneen aaya su ko defee wa minhum man yalmisuka fi sadaqaati wax na ko ci yeneen aaya moo tax ñenn ñi bañ ne benn la ñu ne déedéet du benn allamsu ak hamsu nekkuñu benn hamsu mooy jëw nit ñi bu ñu fi teewee ci sa la fi teewut ci sa làmmeñ lamsu mooy jëw nit ñi buñ fi teewee ci say bët ñaari nag benn baaxut ci kon nag yàlla ba mel ni ñu perte nañ gëñ ko ñëpp tiit mu ne nag lii wane perte mooy ku melokaanoo ñetti melokaan yii su ko defee tamit nag kon loolu lay saar wi di jàngale saar wi nag ñu ne mi ngi wàcc ci umayatum nu xalaf ñi ne asim nu waa'il ñi ne axnas ndax ñoom dañ daan jëw yonantu bi sallallahu alayhi wa bu fi yonantu bi nekkul rek ñuy yàq deram ci seen làmmeñ donte deram ba yàquwut waaye ñiy yàqoo ñoom ca deru yonantu ba bu fi yonantu bi ne nag ak nit ñi ñu wër leen ñuy piisante ci seeni biir am na nit ñu sew ñu mel noona boo toogee nga toog rek mu ngóobi la wala mu jël maanaam loxoom yi am ku mu joxoñ fekk yéen ñaar am na ko dox ci seen diggante moom xamu ca dara loolu melokaanoo nit ku sew la melokaanoo nit ku manki la melokaanoo nit ku bon la kon kum nekkoon ki sa jikko na ko jéem a bàyyi ndax yàlla nee na ku nekk ca loola ba dee bàyyiwuloo ko am na xur wu lay xaar ci safara moo tax mu ne waylun moom la hubbee saar wi kon nañ ci bàyyi xel moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa koon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira waylun xur wa ca safara li kulli hummazatin ñeexal na képp koo xam ne ayi balaa kon la nit ñi ci làmmeñam ci fàddu lummazatin kay ayi balaa kon nit ñi ci teewaay ci ay bëtam kookaay kan mu ne allazi mooy nguur sa xam ne jamaa dagale na maalan alal ju bari wa addadahoo mu bari lum koy konte wa addadahoo mu takk ko wa addadahoo mu xadul ko ngir jamono ju ñëw ca kanamam def ko dara nekkut ca waaye li ko yàq mooy yaxsabu dafa njortu anna maalahu naka alalam jooja bu dajale axladahu dana béelal ko ku yaakaar ni alal dana la fi tax a des sa lépp yàqu na kàllaa sama borom ne nim yaakaaree mbir mi demee wut ko de kàllaa bërig alal taxut ta béel la yum basar na def na sànni ko moom mooma fil xutamati ca safara suñu tuddee xutama ca dara kaat ya la day mooñe te ciri doom aadama comme ni boo jëlee dugub dugal ko ci machine ab wal na mu koy na mu koy mokkalee buñ ca dugalee xéeféer yi noonu lay mokkalee seen yax yi ak seen cër ya wal ko ba mokk rek moo tax yàlla tuddee ko xutama ma ngi koy firine ne wa ma adraka mal xutamatu ana lëf lu màgg lan moo la xamal luy xutama mu ne moom de naaru laay safaraaw yàlla la al muuqadatu ba de buñ taxal allati safara wa nga xam ne tattaliu dana yër dana lakk alal afidati ca xol ya dana lakk jëmm yi ba lakkaale xol ya innaha naka moom safara woowa di xutama mu sadatun lu ñu tëj la alayhim ca xéeféer ya cay dugg buñ ca duggee nag fii amadin mbir muñ leen xeew ci ay keno mu ma maddati yede yu ñu tàllal yu njëkkati ca kaw ci lañ leen xeew ba nga xam ne kenn du rëcc kon yaakaar naa ne lii lu ko nit jëndee jëru ko képp ko xam ne yaa ngi jëw nit ñi ci sa làmmeñ mbaa ngay jëw nit ñi ci say bët mbaa ci say manière wala nga yaakaar ne alal dana tax a béel mbaa alal dana tax nga gën ku ne te ameewu jikko ju koy wane su boobaa nga yëg nga ñàkk a yëg lii yàlla xase woon umayatum nu xalaf xasee ko asib nu waa'il wala nas dal na ci sa kaw am na ñoo xam ne bu ñu xamee alal rek xëppale seen bopp nit ñi xëppale seen bopp seeni xariti démb ya ëppale seen bopp seeni mbokk ëppale seen bopp seeni xameel bu leen yàlla ganee ba tànk jox leen alal ñi sensé garant place sensé ay xameel danañ dem ba sensé numéro téléphone sax yaa leen xamee woon démb dootu leen ci mën a jotati tey su ko defee nag di fuuy di néwi rek maanaam mel ni ballon bu ñu wal ma ne kuy néwi néwi luy funkulu di wali bakkan ngaa yàkkamti xaaral ba dugg ci biir bàmmeel da nga doy lu ci néwi ku ca xas dugg da nga doylu ci newi kon di newi newi luy rëy rëy luy funki lu yàkkamti rek la waaye bis boo dee bañ la ci bàmmeel danga xam ne loo doon jaay da nga foofa kon nag saar wi wax naag jëwkat yi waxoon naa ko fi nekk nañ fi coow fi suñ réew mi lekk yàpp mbaam ma ne lekk yàpp mbaam yàgg na fi di ndax képp kuy jëw nit ñi yaa ngi lekk yàpp mbaam yaa ngi lekk sax lu gën a xées lekk yàpp mbaam mooy yàpp nit ay ayuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuhu yaakaar naa nag mbeddam nit moo gën a garaaw mbeddam mbaam kon jëw lu bëree bëri la ci ji jamono dafa mel ni dafa saf suukar ba kenn ku ne ma ngay jéem a xam lam saf su boobaa nag kon suñ bañee mucci suñ bëggee mucc ci mbugalam yàlla mii nañ bàyyi jëw nit ñi yàq seen der yi ne la sa bopp doy say ayib wëlis ayibi yi keneen ku ñuy wax ci moom lu ñaaw artul ñooña suñu bañee nga jug bàyyi leen fa waaye bu ñuy wax nit ci lu ñaaw nga déglu ko yàkkay jëw yéen a xem bàkkaar loolu la yonent bi wax te loolu moo bëri waaye da ngay toog sax ñu yàq deru nit nga koy yokkal xanaa kay loolu day door a feeñ rek man kay li ma xam ci moom nangam ak nangam ak nangam kon tabaarakallaahu nit ñi ku leen topp ñu yóbbu la safara waaw te yonent bi waxoon na ko nee na nit ñi li leen yóbbu safara la ci ëpp mooy seen ngóobitu làmmeñ wa hal yakubu naasa fi naari illa xasaidu alsinatihim mu ne li ëpp ci nit ñi seen ngóobitu làmmiñ moo leen dugal safara wax loo warta ta wax rek loolu rek ci ngay nekk bala nga xamoon ci lu baax lépp yàqu ñu mujj ki ña nga doon wax par ñu topp la nga safara yàlla nañ ci yàlla musal saar wi mu ciy teg nag mooy suratul fiili soo ko doon jël ci toftaleeg alquran mi ngi wàcc gannaaw kaafiruuna waaye nag yonentu bi ci njàngaleem moo ne nañ ko teg fii sallallahu alayhi wa sallama di ci jàngale ba mu waxee perte nit ki perte ngir topp alal alalam foog ne mën na koo béelal fuyloo ko ba mu ëpploo ko nit loolu lay saar wii di jàngale moo dal abrahata moo tax yàlla ba mu waxee yaxsibu anna maalahu axladahu fa mel ni loola ci abraha la wàcc moo tax mu tofal ci loolu yonentu bi nañ ko teg ci gannaaw saar wi ñu jàng léegi ndax xisa bu gudd la muy alam tara kayfa faala rabbuka yàlla da ci jàngale ne mbooleem ku yàlla jox pouvoir nga nekk dictateur da nga torox kenn mënu ci dara yàlla bindu nit ñi pour ñu toroxal leen te ku jóg ngir toroxal nit ñi sa toroxtaane taxaw na teew na Abraha yàlla jox na ko pouvoir mu jóg ngir bëgg a toroxal nit ñi xoolal fi yàlla mu jëg moom moom mii Abraha euh, dafa amoon buur bu nekkoon yaman moo ebaloon ay soldaar ngi dem Éthiopie di xeex ak ñoom ba mu demee mu yebal ku ñu tuddee ah, maanaam arbaat mu not leen not ñu bari Abraha nekk ku am doole mënul ko dara presque population ba xaaj ñaari xaaj ñii ànd ak arbaat ñii ànd ak Abraha ñoom ñaar ñooñu nag ba ñu jàmmaar looxee Abraha not arbaat rey ko ñi mujj samp ko foofa ca Éthiopie mu nekk fa maanaam gouverneur ñeel waa yaman mel ni ku leen fa nekkal am doole lool nag mu toog bis doole di ko yàlla jayak pouvoir beek alal ji ndax li ñuy wax ku ëpp nit alal baaxut ci moom da koy xëppal rek ndomba tànk baaxut ci moom da koy sànk rek dara ju ëpp baaxul ci moom da koy yàqal rek mu toog nag gis nit ñi di ko romb takk ay gëléem ñu ne fuñ jëm ñu ne kaaba ga la ñuy xaji dafa yonent yàlla ibrahima tabaxoon muy kaabatal musharrafa mu ne lu tax ñu koy aji ñu wax leen ngëneel ya fa ne mu ne man danaa tabax kaaba gu ko dàq fii ci sanaa u yaman su ko defee dem mabbi kaaba googa nit ña ñëw di aj fii kaaba goo goo judd sa maam yi judd xëy fekk ko fa xamoo lu ko fa teg nga ne da nga ko fi jëlee yaakaar naa yaa fi jóge ko mu bind buuru yaman ba wax ko ko ne ko maa ngi lay tabaxal kaaba goo xam ne amul benn tabax bu ko gën a foor tey ci kaw suuf jël alal ja population ba yëpp def ko ca ba mu demee ba pare nag aa ah, kaaba ga pare ci nim jàppee na mel na ko aa ah, benn arabi yu ibnu kinaanata dégg ko moom mer dema dem ba ca kaaba ak abraha ga mu kabine fa ci biir ga jël kabine ya riix ko ci biti pour ñaawal abraha ñu wax ko ko nag mu ne ku def loolu ñu ne ko benn waa joo xam ne daal xam na ci xaram bala dëkk rek moo ko def mu ne dama doon waaj pour toji kaaba ga mais waajatuma jàpp naa bis gannaaw suba laay dem yónnee buur ba ne ko na ko yónnee ñay wum war a war buuru yaman bi mu yónnee ko ñay woo xam ne turam mooy mahmoud kunyatoo mooy abul abbas mu yéeg ca nag ak ñay ya topp ko gàngoor ga muy dem am na buur bu ko dagaale muy zu naw far mu not ñam àndatoon ak ba jàpp ko jaam mu ne ko bu maray nga bàyyi ma fi moo ma gënal mu téye ko demaat ba ci kanam amaan ñu ko traversé waat su ko defee tamit mu jàppaat leen jaam waaye reyut leen ca lay ñëw ba yegg si taayif ñooñu génn ne ko yow lañ ànd ak taayif gi ci màkka su ko defee ñi boole koog abu arxaam euh, arxaal pour mu war koo wan yoonu màkka wa pour mu war a dem toji kaaba ga dem nag ba ci benn xuur bu ñu tuddee waadil muxammas mu kampe fa nag toog fa nag joxe ndigal ne mbooleem gàtti nit ñi ci gëlëm yee xar yeeg ba yi luñ gis rek nañu indi ca lañ dem nag ba jàppale ñaari téeméeri gëlëm yi Abdul Muttalib mii maami Sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk yónni na xunaatatu ne ko demal ca dëkk ba nga laaj seen sang ba fa nga xamal leen ko ne maa ngi ñëw xeex andiwut ma damay tocc kaaba gi rek ñibbi ah bañ demee ñu ne ko Abdul Muttalib mooy sangu dëkk bi mu wax ak moom Abdul Muttalib ne ko man damaa am soxla ci moom dama koo bëgg a gis dégg naa jàpp na samay gàtt moom moom ñu ànd ñëw ba ci Abraha Abraha bi ñu ko gisee nag ñu sante ko ko ni mu nekkee sang mu tiit fonk ko xormal ko waaye rëy naa toog ak moom ci benn gàngunaay gi te tamit rëy la toogloo ko ci gàngunaay gi toog ci suuf mu mujj na ko nañ toog ci suuf ñoom ñaar ñëpp ñu bokk toog ci suuf bañ paree nag mu wax ki koy làpp ko ne ko laajal ma ko luy soxlaam mu laaj ko mu ne ko luy sa soxla mu ne mu ne moom daal luy soxlaam ñaar téeméeri gëlëmam yi nga jàpp moom la ba pour ñëw nga libéré ko ko mu wax waa ji ne ko wax ko ne ko bi ma ko gisee fonkoon naa ko xormaal ko foog ne ku tedd la ku màgg a màgg la waaye bi mu addoo xeeb naa ko kaaba gi ma bëgg a toj ci la tedd nga am nekk ak tedd ngaay ay maamam ak i baayam laajut ma ci mbiram kaaba ga dara di ma laaj problème mu ay gàttam yu ñàkk solo yooyu mu wax ka koy làppatoo ne ko wax ko ne ko nit du laaj lu moomut man kaaba gi sama yoon nekkul ci xam na borom man li ma moom mooy sama gàtt yi laa bëgg nga jox ma ko rek ma dem ñi inna lil bayti rabban sawfa yaqudu mu jox ko gàttam ya foofa nag abraha préparé na day dem ñay wa daal muy mahmoud bu waree rek fu ñu ko jubale Sham yaman mu nangoo dem waaye buñ ca Kaaba ga rek du nangoo dem bu dóor dóor du nangoo dem foofa rek nag tabaarakallaahu la yàlla ebal ay picc ci xisa bu gudd aa picc ya fekk ko fa picc mu ci nekk ñetti doj gay xame ñaari doj ya da koy téye ci sa ñaari si sa sa ñaari tànk yi benn doj ba da koy ŋànk ci sa gémmañ ñu ñëw rek commencé leen nag roose leen doj ya ñoom ñooñu ñëpp ñi tasaaroo daw ñu bari dee abraha nag moom yàlla musal na ko deewul ca saasa moom yàlla da ko sadd feebar feebar boo xam ne bët bu set rek ay cëram di dagg boole koog di néewi cër yay dagg bu demee ba ci kanam benn baaraam dagg demaat ba ci kanam nopp ya dagg demaat ba ci kanam maanaam baaraam yi tànk yay dagg demaat ba ci kanam maanaam loxo ba dagg tànk yay dagg par cër ba bañ koy yóbbu muy ñibbi Éthiopie dafa mel ni picc ngir tuuti mën a kenn xamatul lu muy niru yàlla noonu la xalagee ki jugoon ne day fay leer ak yàlla moo tax nag kon taxal yi yàlla taal ku ko bëgg a fay yaay fay de taxal yi yàlla taxal ku ko fi bëgg a jëlee yaa fiy jëlee ku ko fi bëgg jëlee yaa fiy jugee ko waaye loolu moom ken munu ko dara yàlla na sadd ci lépp jaar ko ci Abraham yi li mu bëggoon a fu mujj kon nag xisa bu bu gudd la dama koo tënk talxiis ko su ko defee nag xisa booba yëpp moom la yàlla tënk ci saar wi ci alam tara kayfa fa'ala ko bi ashaabil fiil yi saar wi juróomi aaya la soo ko jëlee fanweeri baat la juróom-ñeent fukki xaraf la loolu la saar wi ëmb ci ay baat ci ay aayaat ci ay xuruuf yàlla di ci nettali ni yàlla alagee abraham mbooloo xam ma àndoon ak moom moo tax sama borom ne alam tara xanaa yëggut sa xam yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kayfa faala naka la def rabbuka borom sa bi ashaabil fiili ca borom ñayya te mooy abrahata alam yaj'al ndax dafa defut kayduhum seen pexe ma fii tadlilin ci sooy wa arsala mu hebal alayhim waral leen tayran ay njanaaw ababila yi nekk mbooloo su ko defee tarmihim mbir moom danañu sànni leen bi hijaaratin ci doj doj yoo xam ne min si jiilin mi ngi bàyyi ko ci banab safara fa jaalahum mu jël na leen ka asfin ñi mel ni ki ngub makoolin ma de muñ lekk ka asfin mel ni ki ab lanci makoolin bu ñu sàqar mi li fas wi lanci di ko lekk wala xar mi lay rot nga xam ne da koo yëy ba mu mokk mu wadd ci gémmañam gi kooku mooy asfu loolu la namu fii wala li nga xam ne dafa naat nekk am ñax kii nekk baykat bi ñëw di ko gub di ko yóbbul kii am ya xam nga jëlee na ko fa gub na ko ci suuf te dara desatu fa parce que yàlla ne na ba ñu sëqee ba seen doole jay leen ñi mel ni toolam ñax bu naata naat damaa mujj man yàlla ma gub leen dara desatu fa wala ñu mujj mel ni ñax mu tooy mu benn mbaam wala fas di lekk ba mu nooy ci gémmañam gi yàbbit yay sotteeku nga xam ne dara bëggatu ko noonu lañ mujj mel fa jaalahum ka asfil maakul kon nag leer ak yàlla ku koy bëgg a fay fii ngay mujj ndax yàlla am na fu la ju tey ni saa yuñ bëggee fay leeram nga rek mu bañ yuriduuna an yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim wa yëba allaahu illaa an yutima nuurahu kon loolu mooy ashaabul fiil foofu lañ mujj saar wi ci tegu boo jëlee ku mel ni ubay ibnu kaab dafa ne suratul fiil ak suratu quraychin moom benn saar la ko def amul basmala seen diggante ndax mu ne benn la mu ne ndax li muy saar wi benn xisa la xisa bi yëpp njariñ la ñeexal waa Qurayshin yàlla alak seenam noon pour desal Qurayshi ndax tey bu yàlla alagutoon seenam noon bi ñoom dootuñ fi nekkati Abraha bu pexem ya sotti woon kon li ilaa fi Qurayshin du amati seen booloo gaag seen tikku yañ doon def rihlata shitaayi wa sayfi dootul amati moo tax mu ne benn lañ kon yàlla dafa wax ne alagal naa lee seenam noon pour desal leen fi nag ma desee leen fi ngeen am xéewal alal dul jeexati du ngeen bay te lu ñuy bay bu ñëwee fekk ko Makka ma defal leen sécurité tamit waxuma yéen waaye rabi dëkk ba sax duñ leen rey ca Kaaba ga wa amanahum min xawfin defal naa leen ñaari xéewal atamahum min juuin wa amanahum min xawfin muy wane ne kon état bu mën a doon ci ñaar rek lay taxawee état mënul mënul am développe mënul am développement wala ab population lu dul dañu am sécurité gannaaw bu ñu amee sécurité tamit na fekk luñ soxla ña ngi koy am jëggaani wuñ dara seen dudd ba ñuy dund lépp ña ngi koy bayee ci réew ma jëggaani wuñ ko waaye réew buy jëggaani lu muy dund pour mu développer day jafe ndax ku jëggaani lu la dundal da nga jëggaani lu la faj tax gars yi fu mel ni ku ci feebar ñu ne nañ ko jëggaani li garab mu jógee ko France mbaa mu dem France faju ji fa wala mu dem Amérique comme li ñuy lekk dañ koy jëggaanee foofa bu ñu feebare foog ñu wuti garab yi ñuy jëggaanee foofa kon nag yàlla nee na réew ci ñaar rek lay taxaw at'amahum min ju'in wa amanahum min xawfin waaye bu fi koom-kam nekk ne gàññi te sécurité amut képp ku ne ku ne yaa ngi tiit toog ci kottu nen jàmm amut boo amee sécurité te amoo dara tamit lu muy jëriñati waaye bu ñaar yi xasee am rek li nga bëgg lépp am te yàlla nee na man yàlla maa leen ko defal yéen waa Quraysh gannaaw bi ma alagee seen noon ba Abraha pour bëgg ngeen des fi moo tax euh, Ubay ibn Kaab def saar wi muy benn ñeen na ngeen ne saar wi nag ñu ci bëri moom kenn ko def nag waaye ñu ci des ñëpp dañ saar wi ñaar la Euh, te mi ngi wàcc gannaaw suratu tiin gannaaw suratu tiin ci la saar yu wàcc euh, waaye nag yonentu bee joxe ndigal nañ ko dugal fii lu tax ndax ko mu ci ñaari saar yi dafay tegtale teraangay Qurayshi bii dafay tegtale teraangay alagal leen seenam noon moom lañ jeexal bii day tegtale teraangaak defal leen xéewal ci sécurité ak ci alal kon ñaari njariñ yëpp ñoo ko moom moo tax maanaam euh, ñi dugal ko ci gannaaw foofu su ko defee moom saar wi mooy maanaam li ilaafi qurayshin makka dafa nekkoon dëkk bu dëkk bu bekkoor yéen ña dem ca suusa gis ngeen ne suusa nanguwul mbay ay montagne la ak i xeer su ko defee nag mujj suñ bëggee dund ñaari tukki lañuy tukki tukki mii noor lañ koy def jëm yaman maanaam kon jamonoy sedd lañ koy def jëm yaman beneen bi ñu def ko jamonooy noor jëm maanaam Sham mooy rihlata shitaa'i wa sayfi tukkeem jamonooy sedd bi yaman lañ jëm tukkeem jamonooy maanaam tàngoor wi Sham lañ jëm di fa jëlee alal ñaari tukki yi nag bu ñu ñëwee lañ fay jëlee ci alal danañ ci mën a dund ci diggante ñaari diggante yi buñ tukkee bii daal danañ ci mën a dund 6 mois tukkiwaat jëm Sham dundaat ci 6 mois di xaaraat déwén nag ci lii lañ doon nekk nag booba nag defoon ay teqalikoo ay giir Hachim di maami Sayyiduna Muhammad moo leen dagale def leen génn giir moo tax yàlla di wax loolu ne li ilaa fi Qurayshin seen ak booloo nekk benn nekk benn bolo di yëkkatee ndoor di tega ndoor ba mu ñëwee nag moom dafa yoonaloon ne suñ tukki nii suñu tukkee ñun ñi am suñu ñëwee nañ ko séddoog ñi amut ñoom ñi am dañoo séddoowoon ñi xamut ñu dem a dem ba ñi am ëppaleetuñ ñi amut dara kooku maami yonent bi moo ko njëkk a yoonal ci seen famille ñu mujj naat nag barke am xéewal yu dul jeex yàlla nag ne kaay ma defal leen lu gën a yomb loola tabaxal naa leen néeg muy seen teraanga ci seen dëkk bi màggal leen borom néeg bi di ko jaamu su ngeen ca nekkee dootu leen tukkeeti nit ñey tukki di leen andil yéen daal bàyyi leen seen tukki mi rek dafa fal ya'budu rabba haazal bayti jaamu leen borom néeg bi rek borom néeg bi nga xam ne moo leen fekkoon ci xiif mu lehal leen mu fekkal leen ci ak ragal mu defal leen sécurité su ngeen saxee ci jaamu ko dootu leen demati Saam dootu leen demati maanaam yaman yaakaar naa fu mu ne yaman ay dem Makka fu mu ne tamit Saam ay dem Makka yaakaar naa ne Europe ñooy dem Makka ak Asie ak Amérique ak maanaam rawatina afric nga xam ne tey yàlla sotti na fa xeeti teraanga yu sa xel daj tey ma nga Makka kon euh, dëgg-dëgg léeg-léeg am lu la jege te li nga bëgg lépp mi ngi ci li la jege. nga négliger ko bañ koo fonk bañ koo toppatoo bay wuti loo xam ne lu la sori la yàlla nag ne teraanga ji nga xam ne su ngeen ko fonkee te mooy kaaba gi man mii borom kaaba gi ngeen fonk ma su boobaa li ngeen bëgg lépp da ngeen ko am mujj gi nag ba mujj nag ñun ñu sax rek ci fal ya'budu rabba hadal bayti bàyyi nañ léegi nag maanaam rihlata shitaa'i wa sayfi bàyyi nañ yooyu yëpp nag léegi nit ñaay laxas jëm ci ñoom mais ñoom jëmatuñ ci kenn kon loolu la moom la nettali laam gi ulamaaw yi dañ cee wutee ñii dañ ne laam gi maanaam laamu taaliq la ñenn nga ne laam gi laamu taajub la moo tax boo tëppee ci laam gi firi ko rek doo mën a dem moo tax ñenn ña ne laamu taaliq la boo ko bëggee firi da ngay commencé ci fal yaabudu rabba haazal bayti door a door a mujjee ci li ilaafi waaye boo boo boo déparé ci boppu saar wi rek doo ko mën a firi moo tax sama borom ne fal yaabudu nañu sax dàkk ci jaamu rabba haadal bayti borom nee bii di yàlla fi borom nee bi nga xam ne ataamahum moo leen lexal min juuin ci xiif wa amanahum moo leen hóoluloo min xawfin ci ragal nañ sax ci jaamu yàlla moomu li ilaafi quraychin ngir ak tàpp waa ga su ko defee ilaafihim seen ak tàpp laa wax rexlata chitaayi ci laxas ak maanaam sedd wa sayfi ak laxas ak noor kon dafa bëgg a wax ne xéewal yi ma leen defal li muy bëri bëri bëri ba bu ngeen ko bëggee lim du sotti wa in taudu nicmatallaahi laa tuxsuha su ngeen bonee ba santu leen ma ci maa ngi leen di ñaan waay ngeen sante ma génn xéewal gi ma leen defal te mooy kaaba gi ma leen sampal jox leen sécurité jox leen koom-koom bu ngeen ma santu ci yeneen yi ci des yëpp sant leen ma ngir loola rek loolu la bëgg a wax moo tax mu ne kon jaamu leen boroom nii bi santee ko ngir xéewal yu rëy yii mu defal leen su ko defee nag euh, ndax kat euh, xéewal euh, dañuy dafa mel ni rabu àll li ko mën a yeew rek mooy buum buum gi mën a yeew xéewal gi la yàlla defal ti mooy sant bu la yàlla joxee xéewal nga bëgg mu sax santal soo bëggee mu dolleeku santal waaye saa yu la jàll dafa lay xéewal santu la rek yow mooma yaa yaay ki xewi xéewal ga yàlla nag moo tax mu ne la in shakartum la azidannakum wallahi waat naa ne su ngeen ma santee ma dolli leen noppi ca noppi ca sax ga ndax loo dégg muy ko dafa sax balaa dara mën a dolleeku kay day fekk la muy dolleeku nekk fa waaye bu fa nekkatul moo tax yàlla noonu wa tudd benn ba bàyyi benn ba wallahi bu ngeen ma santee ma dolli leen waaye déggee nañ ci ñu dolli ti mooy da nga da saxal la ñu jox noona dama koy saxal ba pare dolli ko la bëgg a wax ndax dara mënta dolli ko fekk saxut moo tax mu tudd benn bay waral benn ba su ko defee noppi ca ba ñuy waral la in shakartum la azidannakum su ko defee kon li ilaafi qurayshin mi ngi noonu